atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk yemook fukki fan ak benn ci weeru octobre atum 2018 mbokk teewlukat yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm ci seen ay xibaar dañu koy daal di doore ak ponk bi gën a fës ñeel maanaam déclaration bi nga xamante ni moom xalif général de mourides ñu gën koo xam ci sëriñ Muntaxa Mbàkke amaloon ko nag niki dimb di dikk rek ci wàccaayu loolu ñuy wax maanaam 18 safar daal di yemook nag ñaar ci weeru octobre atum 2018 bii nuy dëgmal ci noonu nag moom mun taxa Mbacké dikkar na bu baax a baax ci maanaam taxawaay bi nga xamante ni rek taalibe yi war nañ ko am ci wàccaay bu nu ñu daal di koy teewlu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit bokki taalibe yi. bokk yi ma bokkal sëriñ bi maa ngi nuyu ñëpp di yeesa sunu cant ci sunu borom di yeesa sunu cant ci sëriñ bi ci diggam ak boromam di yeesa sunu cant ci sëriñ bi diggam ak jaam ñépp danoo amaat tawfeex ju rëy ñu fekkeewaat eh, teertal weeru safar bi nga xam ne mu sunu weer ñun ñi nga xam ne am nañ tawféqi suñu borom boole noog sëriñ bi ndax bis bi nga xam ne ci la boole cantam yëpp bis boobu ci weer bi la nekk muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci safar kon sama kilifa yu baax yi nu jiitu di di gën a fàttali gën a fàttaliku bis bi ci xéewal gure gi nga xam ne am nañ ko ci kon bis boobu mooy sunu lépp tey ëllëg ci biir fàttaliku bis boobu nag ak waajal ko fas yéene fas na ce fas yéene cee gën a yeesal sunu cant dolli ca rek lu mën a dolli sunu kem kattan loolu moo waral kàddu yii ñuy bëgg jëmale ci mboole mbokk yëpp yow bokkal sëriñ bi ñu di sëriñ bi di delluwaat di ko ñaanalaat bu baax a baax moom sëriñ Muntaxa Mbàkke suñu borom bi bàyyiwaat ko ci suñu kanam lu yàgg a yàgg ñu daal di cay des ba tey ci xew-xewu wàccaayu màggalu ko Touba niki tey nag di première safar xel daal di dem ci maanaam an mbalit bi nga xamante ni dañ koy amal saa su ne fii ci dëkk bu sell bi di Touba ñu daal di fay defoon nag benn doxantu jël kàddu ñenn ci ay taalibe yi nga xamante ni dañu daal di sóobu bu baax a baax ci liggéey bi ñu teelu ko ci micro ma Bichri waaw liggéey bi moom dañ ko naan defee rek eh, ñun daanaka vingt ans ni ñu koy def nee na laa maanaam 98 la commencé di ko def kon nag liggéey bi doon ko xam sëñ eh, sëñ mun eh, sëñ Saliou moo si ñaanal ba tey ñu koy def sëñ Alaaji Baara ñu feddali ndigal ndigal li ñu nekk si di ko def kon loolu ab taw fi ñun lii moom tax sëñ Touba amul lu gën lu gën a lu bëgg bëgg a bëgg mooy Touba kon nag mooy satal ko kon si zaahir ñun ñii dañoo taxaw fas yéene liggéey sëñ Touba zaahir nii satal dëkkam bi gën gan yi mën a teeral gan yi gën a mën a ñëw dal dal bu am solo ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaar suñu borom yàggal ko fi lool ba lu kàttan gànd ak wér ànd ko mbooleem waa daayira bi yëpp ak mbooleem waa dëkk bi yëpp di bale mbooleem lu wër jumaa ji ñun na suñu liggéey moom yëmuluñ ko ci ndigal lii rek ñun ah, chaque alxamis muy ajuma ci dañ fay commencé bale miinu ba fajar mooy mbokk yi nga si ñoo taxaw nii ñenn yi ngi wër ci jumaa ji ànd ak mbooloo mi ah di rafet lu baax a baax ci taxawaay yi si moom la murid taxawee ci sëriñ bi mooy ci rawatina ci bërëb bi nañ ko gën a bàyyi xel rek ndax ñu suñu lépp moom ci bërëb bi la di soññee ci war ma ji nga xam si moom la jox sëriñ bi ci bërëb bi ju nekk muy jumaa ji ndax day mel ne euh, war ma ji euh, mi ngi des ci genn fànn waaye lu ñu gën a góorgóorlu war maal ko rek waggar ko dana am solo lool benn mbokk ñoo xam si ñi ngi fiy jaar ñu leen laabiré xam ne bërëb bi euh, deesul foo xam si ni fi ñuy waxtaanee la ku fi jaar war nga am melekaan woo xam si nii mën naa wuuteeg yeneen melekaan yi di wax ni dàll yi ni ñu gën a wargare ak xeet oto yi xam ñi ngi fi daw ci bërëb day mel ne xëy na dëppawul ak bërëb bi yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel baa baax ndax bërëb bi day bërëb boo xam si nii dañu mat a war a ormal la di santit baax a baax mbokk xam si ñoo nekk ci liggéey bi ndax am na solo lool ci taxawaay bi ñu ko taxawee di ñaan sëriñ bi rek dool ñu kàttu nga ànd ak wér bañ gën a mën koo jekk di ko liggéeyal ci barke Cheikh Rahim Fall Baye Mouridina di fas yéene liggéeyal borom Touba di ñaan borom Touba liggéey loonu ak xol bu bëgg a liggéeyal borom Touba nun waa kër sëriñ Touba dëkk Touba ci gox bu ne noo ngi nii nooy asabul jannati di fas yéene di liggéey ci jumaa yi borom Touba ji liggéey bi ñuy liggéey ci jumaa yi borom tubaa ji nag du safar bi rek la maanaam nun dañ cee fekk dañu cee fekk sunuy waajur nu fas yéene ko ànd ak ñoom di ci fa fasaale xol bu bëgg a liggéeyal borom Tuubaa fi ne nii noo ngi toll ci liggéeyal kër sëñ Saliou di yanu ci suuf yóbbu ci biir barab yi biir eh, fi ñu nekk di fiy defar muy néeg yooyu waaye liggéey nañ ci jumaa ji nii ba noppi man nag joxe katub eh, café laa fi man soxna Mbaye Njaañ Baye Fall dëkk Touba Madiyana maa ngi ma àndal ñëpp noo ngi nii di liggéey kat di fas yéene di liggéeyal borom Touba tey ñaan yàlla borom Touba liggéey loonu ba tey ci wàllu xibaar yi bi yoon dañuy daal di wutali ca capital bu Sénégal di Ndakaaru daal di wax nag ci defkatu ñaawteef yi nga xamante ni dañu leen daal di teg loxo niki démb ci àllarba ji fukki fan ci weeru octobre maanaam ci guddi ñu fekk leen foofu ñuy wax ci autoroute bu Limaamu Laay daal di leen di teg loxo laka sabab nag mooy loolu lu ñuy wax opération de sécurisation bu ñu amaloon ci turu ñi nga xamante ni ñooñu lay ñuy wax les forces de défense ngir rek daal di dàq ñàkk kaarange gi nga xamante ni dafa daal di lëmbe réew mi waaye it capitale bu Sénégal di Ndakaaru ba askan wa ñemeetu ñoo tëdd ba yandoor ci noonu it ñañu teg loxo lañ ca xamle mooy toll nañu ci fukk ak juróom ci ay defkatu ci aljuma ji incha allahu rabbi daañu leen weer ci kanamu askan wi waaye it bu ñu sukkandikoo ci moom mi nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu ñeel wàllum kaaraange gi ñu gën ko xam ci Aly Ngouille Ndiaye mooy ni kat dafay daal di dalalaat xelu askan bu Sénégal di leen xamal rek ni maanaam ñooñu ñuy wax les forces de défense et de sécurité jël nañ leen daal di leen di samp ci gox yeeg goxaat yi foofu ci Ndakaaru ak Sénégal waaye it lam ca xamle te dolli ko ci mooy mooy ni a baax police ñu daal di koy xayma mu toll ci ñeenti téeméer ci ay nouveau élément ngir rekk daal di aar askan bu Sénégal ci ñaawteef ak jëf ju ñaaw ji nga xamante ni gis nañ ni kat ay defkatu ñaawteef dañoo bari fii ci mim réew ci noonu la ñuy daal di wutali dëkk boobu nga xamante ni mooy Fatick daal di waxit ci feebar boobu nga xamante ni dafa daal di yéeme loolu daal di leen di sonal ñu daal di xamle kat nag xayma ba dafa daal di yokk daal di toll ci ñaar fukk ak juróom dafa dafa daal di law ba dugg ci ñaari gox yu ñuy wax ay commune rurale nekk foofu ca dëkk boobu nga xamante ni moom la ñuy wax Fatick te bu ñu sukkandikoo ci moom la médecin chef ñu gën ko xam ci docteur Mamadou Sarr la mu ca xamle kat mooy jamono ji ñi ngi am yaakaar di ko dunde ba tey ndaxte nag gis nañ ni kat loolu ñuy wax surveillance bi ñu wacca wanca ban ca war a mën a amal jamono ji ñu ngi ko cay amal ba nga xamante ni rek képp ku nga xamante ni feebar boobu ñuy wax dengue dal na la ca dëkk boobu ñuy wax Fatick doon na noo xamante ni kenn du la def hospitalisation maanaam daan la jox garab ngir nga mën a ñibbi ci sa ay kër waaye it la ko sabab mooy ni kat état dafa fa daal di taxaw taxawaay bu mucc ayib ba it ñu ngi leen di jox garab ya nga xamante ni moom moo leen di dimbali ci feebar boobilee ba tey ci wàllum xibaar ñu daal di wax it ci la nga xamante ni dafa daal di biir niki tey maanaam jeñeel dëkk bii di Gambie Irlande ak États-Unis ñoom nag dañu leen daal di sof ci loolu ñuy wax organisation internationale de la francophonie loolu nag ñu daal di koy amal niki tey seen adhésion boobu nag ñu daal di koy approuvé ci alxamis bi yemoo ko fukki fan ak benn ci weeru octobre atum 2018 ci loolee ñu doon amal niki tey muy loolu ñuy wax la le sommet autant pour moi ngeen some boobu ñuy wax bu OIF ci noon it lañ ca xamle mooy fa ñu ko doon amal mooy dëkk boobu ñuy wax capitale de l'Arménie ngir rek nag daal di jeexal xibaar yi mooy ni kat dañuy daal di wax ci nataal bi nga xamante ni moom lañ leen tànnal ni ki tey fas yéene koo def jëmale ko ci moom Serigne Touba Khadimul Rasoul li nga xamante ni mooy jaar-jaaram waaye it li nga xamante ni moom la def ci kaw suuf ci lu ñeel wàllum diine sëriñ koso Sey lañ ci àndal. sëriñ tuuba seyxuna cheikh ahmadu bamba xaadimu rasul radiallahu taala anhu sëriñ tuuba mi ngi feeñ jamono ci atum ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci gàddaay yonent bi tolloog 1853 ci atum nasaraan ñaari way juróom mooy sëriñ maam mor anta sëli mbàkke ak soxna maam jaara buso radiallahu taala anhu mi ngi feeñ jamono ci dëkk bu ñuy wax mbàkke bawal mooy dëkk bi maamam ju baax jooje sancoon muy maam maharam sëriñ Tuubaa bi mu tolloo ci waxtu jàng alquranul karim maamam ju tudd sëriñ tafsir mbàkke ndumbe moo ko jàngal al alquranul karim ba mu wattu alquran ci at yu teel mi ngi jàng xam-xami diine ci waajuram wu góor te mooy maam Mor Anta Sali bëggee ju lool mu doonoon moom sëriñ Tuubaa ko farlu lool ci ak rawam ngir moom wax nañ ni ñi mu bokkaloon di jàng foofee nga xam ne mooy daaray Maam Mor Anta Sali xam-xam amu ci kenn ku ko ci waraw ngir ak farloom ak xelam mu neex dañoo wax ni kenn moo ko ci xawoon a jige mooy ku ñu wax Balla Maam Touré waaye Balla Maam Touré moom moo waxal boppam ni sëriñ bee ko raw ndax da ko gën a sàmm moo tax sëriñ tubaa jamono boobu moo rawan ci daara ji waaye bokkoon na ci ñi nga xamante ni euh, ni ko sëriñ Bassirou Mbacke waxee nee na sëriñ Moustapha al Karim borom Touba bu màgg ba ak sëriñ ma Masamba radiallahu taala anhum nga xam ne rakki sëriñ Tuubaa la nee na ñoo ko wax ni ko sëriñ bi wax na leen ni daan na mokkal téere yu bari yoo xam ne yu wuute ay fànn yoo xam ni mooy yi daan jàngale ci daara ji waaye xam ngeen ni sëriñ Tuubaa ginnaaw boo xam ne Maam Moor jóge na fi bisub yoor yoor ajjuma la koy sallallahu alayhi wa sallam dikkal daal di koy wax ni rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars jaarale ko ci làmmañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ko yaral sa gaay sa àndandoo yi ci yitte ju kawe waaye bu leen yar ci njàngoom kese ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax moom Serigne Kosso Seye ci nataal bu mucc ayib bi nga xamante ni dikk na ci ak ñun tey ci Serigne Touba Xaadimul Rasul ñu leen di wax nag lii moo daal di laflaaj li nga xamante ni mooy seen ay xibaar yi ñu leen doon njukkil fii ci Touba dëkk bu sell bi di ko jaajëfal moom El Hadj Cheikh mi nekkoon ci régie bi waaye cant ngërëm ñeel na ko moom Mamadou Cissé ak Soxna Khady Cissé mi nekkoon ci wàllum caméra bi di wax rek nag neskis daañu leen dégtal li nga xamante ni mooy seen ay xibaar yi ñeel wàllum jaww ji maanaam seen journal journal météo te di leen jox daje ëllëg incha allah ci beneen jotaayu xibaar. قلبي وجسدي عبدت رب العالمين الكلي وجسدي عبدت رب العالمين lam yanhuni bi

ربي الكريم بكتب ليست كريم